Souka yi daan ni tey suñu thème du jour euh, du dara du dut euh, xale góor yi nga xam ne seen jabar yi ñu ngi à l'extérieur di fa liggéey maanaam faatu faatu yi di liggéey ab xaalis di ko yónnee seen borom kër yi des fois nag da ngay gis koo xam ne euh, li mu ci bëgg mooy nam li mu ci nam mooy bu ñëwee li nga xam moo di tabax këram wala genre jël ab somme yoo xam ne doo ubbi sax sa compte da ngay préféré di ko yónnee sa compte jëkkër di ko dénk mais da ngay gis ndeysaan jëkkër yi di leen jéem a teg xel wala di leen jéem a arnaqué mu nekk loo xam ne su Kambay loolu la ñuy waxtaanee tey xam naa nag élément bi yembul dañ koy daal di teg ci table bi rek daal di ko pàccoo ku nekk daal di si jël sa wàll su yi lii benn cas boo xam ne nag dafa critique cas ba tey ji ma wax yow rek léegul ah dëgg la dëgg la dëgg la parce que dafa métti su kaa mbay nga nekk fële ca France wala ca yaa foo nekk. Mhm. su kaa seddaay bi du la rey faatu faatu waxuma la góor sax mais góor moo moodu sax dafay metti moom fa sàkkantuma la ak faatu faatu kii xëy di liggéey di daan dooleem yaa xam xaw ma heure bu muy yeewu xamoo heure bu muy tëdd. xamoo la muy liggéey xamoo nu mu def ba dajale ab som yónnee la ko yow mi borom këram parce que su kaa mbay des fois damay dégg naan est ce que genre yooyu bu ñu ko defee ki moo naay dama naan déedéet parce que euh, yónnewu ko jàmbur ki ko jural ay doom la ko yónnee ki mu doon bokkal benn lal la ko yónnee dama naan booy wóolu jamono ji wóolu sa jëkkër wala wóolu sa jabar mais boo demee nag ba léegi jabar yi wala jëkkër yi ñooy warante seen biir ñu xam ne kaa am na mm. Sénégal danse na su kaa ak ñi ma ko sañ a wax mm. sama mag ji baax bi maa ngi koy nuyu maa ngi koy nuyu bu baax sama mag ji <laughs> mu nekk loo xam ne su dafa metti mhm. euh, am wuñ fan yee paas am na benn gël buñ ko def benn influenceuse bu nekk ci TikTok bi mhm. taaye mu ngi koy direct euh, moom commerçante la fële ca Turquie lu mu am yónnee jëkkër ji su kaa lu mu am yónnee jëkkër ji moom li nekk ko tam boobu tam mooy ñëw tabax kër ñib si Sénégal fii si Dakar toog bu ko defee jëkkër ji mën a gérer affaire yi moom nee na moom loolu la si amoon mais bañ na sax ba nee na dafa préféroon di ko yónnee ci compte jëkkër ji mhm. il paraît que 54 la bi mu koy laaj en direct 54 million la ko jëkkëram yóbbul Souka Mbaye mu nekk loo xam ne man dama naan est-ce que nit ñi ñu ngi xalaat yàlla te Souka Mbaye li ci gën a metti nag mooy ki ko ki la ko def mm-hmm. doo ko ko foogee xam nga wor ak xaalis dafa garaaw sukaa mm-hmm. xaalis dafa seytaane mm-hmm. xaalis mooy dugg foo xam ne fu mu xaju rek mu tas ko boo gorewul dëgg dëgg dëgg di nga jaay sa ngor boo amul dignité dëgg dëgg di nga jaay sa dignité mu nekk loo xam ne dafa ñaaw Souka yow mi nga xam ne yaa war a defal ndaw si yow mi nga ne yaa ko war a jàppale yaa ko war a soutenir mm-hmm. des fois sax bu nekkee ci ay problème yaa ko war a dimbale financièrement mm-hmm. tey kooku liggéey dajale benn somme jox la nga daw ak moom xuloo moom tàppaas ko xuloo divorce amatul la téléphone mënatul la jot fenn nga boole ko ko fépp fépp te muy jaay suba matin midi soir di daw safaan ak marwa tey boo lekkee mooma yaag sa doom bu ngeen lekkee mooma am na góor ñoo xam ne boo doon am milliard sa suka soxlawuñ sa mille tukkil demal fu la neex ci monde bi mais boo ñëwee fi ñu leen fekkoon ñu fekk fi ñu leen bàyyi woon ñu toog fa la ñuy toog te ñoo yor njaboot gi mm-hmm. boo repee sax boo la yónnee xaalis duñ ko laal mm-hmm. mais dafa ñoo xam ne tamit nit ñëpp yemuñ ki am xel di def loolu ak ki ñàkk xel ba loolu ñàkk ngorom bay def loolu kooku xëy na moom moo bon bonu boppam mm-hmm. waaye ku jigéen ki man bëgguma sax ñu koy blâmer parce que mënut a nekk ci naqar ba ko jaral muy laay ñu naa ko yaa ko def góor tey kenn jarta wóoru góor tey góor tey naa mais dama naan déedéet buñ ne góor tey mais jëkkëram la ko jox mhm. bu ko joxee jëkkëram war na ko bu ko dénkee war na ko kon jëkkëram moo waroon am xel mot mot benn mot boo xam ne lépp luy naqara jabar wala lépp luy naqara njabootam loo xam ne bu ko defee mu waxuma jabar ji sax mais day topp doom yi parce que image toi comme bu tabaxoon kër yow ak say doom yéen fay dëkk mhm. kooku bu andi woon dara yéen ñaar yéen a koy bokk kon kooku boo ko yàqalee sa bopp nga yàqal des fois iñaan ba iñaanee sa bopp di yàq ba yàq sa bopp loo xam ne boo amoon yéen ñaar yéen a koy bokk tey nga yàq koo yàqal sa bopp nga yàqal mu nekk lu ñaaw su kaambay temps bi bëriwul nañ ko paacoo rek <laughs> Omar waaw euh, xam ne li daan la confiance n'exclut pas le contrôle mhm. wala la confiance n'exclut pas la méfiance mhm. maanaam nit ki nga ko wóolu mais wóolu bi dafa am fu muy yem parce que daf ci am ñett yoo xam ne. dañ koy léebu xam nga olof lu mu léebu rek am na fu mu ko teg. dana alalu jàmbur. doomu jàmbur jabaru jàmbur loo ko sori sori borom xeeb. ak loo leen mën a bokk jàmbur ak jabaru jàmbur loo ko sori rek borom xeeb waaw loo ko jege rek xel mi commencé parce que nit ki kenn du ko gën a bëgg alalam. Mm-hmm. foofu noonu nit kenn du ko gën a bëgg doomam. alal ji muy liggéey kenn du ko gën a bëgg soxnaam aussi kenn du ko gën a bëgg. Mhm. bis boo ci duggee sax ñu yamale la na la nag saa fii moom taxawal fii loolu daal am na ñoo xam sax ci ci tagg ak di gërëm jabaru jàmbur yooyu. Mhm. parce que dañuy am yu ñuy daw. looloo nag mu indi tey jii soxna si ba muy liggéey mi ngi liggéey mais des fois bu dee ni yow da fi bàyyi ab cas social maanaam borom kër gi doon ab cas social mais sa alal boo ko yónnee. bu dee mhm. ku gàtt xel. mais alal ji day jàpp ni moom na ci war di régler ay problème d' abord du rek jigéen ñi kese mais ñi nekk bitim réew ñu bari dañuy dund loolu. Mm-hmm. maanaam yónnee seen alal fii pour bëgg ci kër pour bëgg ci def ay investissement. Mm-hmm. naka de kan ko yónnee moom mi ngi ciy gunaandaat. Mm-hmm. mi ngi nekk ci boppam di ci dox ci boppam. parce que yow yow yaa liggéey alal bi mais war nga def de telle sorte que alal joojule nga am la patience que ni euh, xoola xëy dem tukki neex na waaye ñibbisi moo gën a neex. boo ñibbisee li nga war a réaliser nga réaliser ko. Mhm. parce que aussi ñu bari dañuy jël bokk teg bokk maanaam dama bokk diw dama bokk ak diw. Mhm. mais bokk da bokk néeg la rek. <laughs> bu ñu ku ne lii parce que bokk taxul bokk jikko aussi. Mhm. nekk sa jëkkër yi am ñoo xam dañuy ne am ak seen jëkkër ñu xam ne kii seen nattu la mais dañuy xam ne borom kër gi ab woyu la. waa ji jubul waa ji ab triant la dañ koy xam mais seen mbëggal ñoom la ñuy jiital. li naan ku bëgg dangay gumba tax lu parce que loolu ngay wax yëpp pour man mbëggil moom moo ko indi. Mhm. mais bëgg ku jar bëgg aussi. Mhm. parce que aussi tamit bu doon neex xam na moom ki mu war a doon tey jii dafa war a doyloo soxnaam de telle sorte que moom doyloo boppam ba wërsëgu soxnaam mën a am mën koo bàyyi. Mhm. parce que aussi ki ki ki lay jëlal mais du la dollil te góor gi la yàlla suñu borom sax loolu. mais des fois jigéen ñi ñu bari dañuy nay ci côté boobu noonu. Mm. maanaam di liggéey di weer sa góor te góor ñi yàlla ma yàlla suma borom baal mais bari na ci ñoo xam ne ñàkk jom. Mm-hmm. côté boobu nag ñàkk jom gore wuñ ci xaalis. Mm-hmm. plus que mi ngi ñëw rek ñoom dañuy jàpp ni lii. ñoom maanaam dañ ko def benn ak yi ñoom ñoo ko moom lii sama alal sama alal lu lii di ko tiitaroo alors que yow soxna si moo la waroon di tiitaroo. dëgg la mais yow boo demee ba egg ci di tiitaroo li sa. soxna moom mais loolu y' problème loolu tax des fois yow mi doon sonn ci liggéey bi amal patience xam na parce que liggéey dafa laaj patience pour nga am. Mhm. combien de temps nga liggéey pour dajale li nga war a dajale. mais comme de temps aussi nga war a xaar pour réaliser li nga war a réaliser. Mhm. mais bu dee da nga liggéey ñaar fukki at ne dama ko war a réaliser ci at. mais wala fi loolu lay wax gaawantu ak yàkkamti bu ñu juree doom rek ci lay jur. yàqule. Mhm. dëgg la Sa. waaw macha allah euh, am na solo. xam nga ndaw si euh, deful dara mm-hmm. euh, jigéen la ju góor góorlu mm-hmm. dem liggéeyi euh, daan dooleem parce que defe naa ni sëy kóolute dafa war a dox ci ay kii parce que boo demee sa jëkkër bokk na ci ñi nga xamante ni bi war nga leen a gën a mën a wóolu mm-hmm. waaye bu fekkente ni bi yàlla dafa laa boole nattu la nga nekk ak jëkkër ju ñàkk jom <laughs> moom mooy indi lu mel noonu parce que ki nga xamante ni kii li la war moom la lay defal ñaan yàlla pour tabax ab kër nga xam ne yow yaa waroon a tabax kër dugal ko ci mhm. sunu borom yaatal wërsëgam mhm. mu bëgg a partager ak yow loolu fas mhm. yéene pour jéem a tabax kër ngir dugal la ci yéen ñëpp ngeen nekk ci biir mu jël alal ji di la jox yow nga am yeneen projet ci alalam ji bu doon sax danga ko ko wax parce que sax boo demee sax bay jël ci àllal ji mais na nga ko ko wax loolu mooy li gën a honnête nga mhm. expliquer ko bu fekkente ni bii d'accord nga xam ne d'accord nga xam ne mhm. kiw ko mais jël ko waa mais loolu mooy ñàkk jom mhm. dafa am yoo xamante ni bii wax dëgg fa yàlla nag góor gu ñàkk jom moom euh, kenn mënu ci dara waaw non du question ku tukki Omar xaalis bi ñu lay jox moomoo ko sa jabar day ñaxe guddeeg ginaar ak ay nenam yaa ngi dégg mënoon na ko ginaar saa mais mënoon na ko noosee ginaar ki koy def mënoon na koo noosee saa ginaar ay nenam boroomi ginaar su fekkoonte ni moom moom mi ngi ko ah, doon noosee épargne boobu du ko mën a def dëgg la yaa ngi dégg noosee wu ko di la yónnee yaa ngi dégg mais mi ngi fexe pour ngeen tabax seen dara mm-hmm. yaa ngi dégg ginaar ak ay nenam c'est que loolu mooy loolu mooy li xam nga léegi mm. boo seetee jigéen ñi mm. ci kanam tuuti seen situation dina gën a compliqué mm. mm-hmm. parce da ngay booy yii di commencé màgg ñu ngi dugg ci ñàkk joom joo xam ni ñoom jàpp nañ ni non jàpp nañ ni waratuñoo sax yor jabar maanaam <laughs> dañu soxla koo xam ni moo leen dimbali dañ naan cas social duma ci dugg lan mooy cas social duma ci dugg yow ndaw si kañ bu fekkente ni bi li muy yow léppam dalaa war yow lépp ñëpp cas social lañ war a ne ci yow même ki am sax cas yow cas social parce que li la war li la war ci moom non non li la war ci moom. li la war ci moom Omar may ma continuer je vous en prie euh, li la war ci moom yaa ngi dégg dafa am ay lu la sunu borom wax ne la lii ak lii ak lii ak lii ak lii da nga ko war a matale du dëgg mm-hmm. yooyu nag nga xamante booy dugg ci jigéen loolu nga war a xool ci moom mais paa nga dugg ci nit ak intérêt mm-hmm. mais léegi da ngay gis fii ñoo xamante ni bii fee la ñuy tëdd naan way man bon faaw ma wut fu may wéer sama wet faaw ma am koo xamante ni kii euh, day taxaw ci samay mbir maanaam ku leen di toppatoo ci alalam léegi nag jigéen ñooñu tamit di nangu loolu tamit tax ñuy nangu loolu hmm. alors ba ban nopp nañ bàyyi xam nga loolu mooy waree rek ne gis nga gis nga jigéen ñi mooy ñoom genre ñoom sukaay yi nga xam ne dugg nañ naan tëj nañ eh bi yow te bu ubbi wutoon bunt bi doo dugg il xam nga ubbi bunt bi keneen ñëw nettali woo ma ko. yaa ngi dégg. yaatal géew. du ma ko yaatal. ah, ah, ah. su ko arrêté la ah. doo yaatal. maa xam maa bañ. du ma yaatal ay ca Ana daa yaatal. Ana moom yaatal na waaye. yow bu ubbi bunt bi nga ne parax. waaw bu dee nii rek ma dugg. waaw <laughs> ma gën tëj lii du maa bañ. macha allah di di Sa Ndiogou fu mu baax na ubbi leen buntu yee xale yaa ngi xaar Sa Ndiogou merci beaucoup merci beaucoup jongo ma yaa ngi xaar ñam nga yaa ngi xaar. kon yi. ndekete li ma koy wax yëpp li ma koy bëgg yëpp ndekete woy bi solution la pour man merci beaucoup Sa Ndiogou soo jógu macha allah fi nga indi di di am na solo maanaam xale yu góor yi dañoo bëgg lu yomb léegi imagineel sa jabar nekk Europe di liggéey di la yónnee mënoon fa nekk tànn waaju la gën a baax gën la jantal gën la nekk góor defu ko mu zappe loolu yëpp mm-hmm. waaw mu zappe loolu yëpp di mën na ko jëlee ci góor dafa delloo ma ma xam nga mënoon na ko bañ a yónnee di liggéey di def ci boppam di liggéey di dajale wala mu koy def feneen mais muy liggéey di la yónnee yow miy bërëm këram da lay leer ne ki lay yónnee ay millions mu ngi la ciy jox pour looy dundee ak sa doom. Mm-hmm. mu ngi ci mu ngi la ciy jàppale maanaam mais lan moo taxaw foofu mooy ñàkk a doylu ak goreed yi moom moo fa nekk nit ki donte kenn ay milliards lañ la denk du sa dërëm. waroo cee laal fifteen. loolu mooy dëgg de. waaw mooy yoon. Mhm. maanaam doomu aadama nañuy jàng di di di doylu di suur. Mhm. mais lu luñ la jox rek nga ne lu luñ la jox nga ne maa ko yeyoo. muñ maanaam maa moom ginaar comme ni ko Omar Omar xam naa da ngay tooñ foofu mais àndoo ci xabaar da ngay bëgg émission bi neex rek voilà da ngay xumbal mais loolu moo dul yëfu nit en tant que jigéen ak jigéen sax waaw jigéen ak jigéen sax warul demee noonu waxantuma laat nag ki nga xam ne danga ko takk war koo yore war koo dëkkal dëkkoo di dundal ak lépp ak njabootam mhm. contraire bi nag ñëw ngay lekk say alalu jabar surtout mu nekk bitim réew mhm. kooku psychologiquement lan ngay def ci xelam ak lan ngay def ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi foofu mhm. di dund foofu ñaata jigéen ñaata euh, góor ñoo dof ci ñu indi seen alal jox ko ku ñu wóolu kooku jël alal ba takk ci jawaat ñi seeni alal ñu tabaxa ci ay kër mm-hmm. ñu ñëw fi nag ñu di la xool ay bët ñaata nit ñoo fi am depression ci ci wàllu kii bu mel noonu mm-hmm. kon nit da ngay doylu wet gore wéttaliku gore nañuy doylu ci li ñu am donte kenn soom bi ngay lekk mm-hmm. man de daanaate yi ay alal bu bëri alal bu bëri boo xam ne du sama alal guddi jot ma dem lebi ci bitig bi mbiskit ak soow wala cere ak meew waa daa daanaa ko def te euh, ki may seetaan maa ngi koy nuyu bu baax a baax xam na dafa ma koy wax tout le temps dama yow de ma jaaxal pour won la doomu aadama lu mu métti métti del del doylu del tàmm di suur suur ci bët la mhm. nit ki da ngay suur doomu aadama yi nañuy doylu daal ñaawlu naa daal li mhm. daal ndaw soosu ak góor ñi koy def aussi ñaawlu naa ko bu baax a baax mhm. euh, gis naa koo xam ne dafa nekk Espagne ànd ak ki nga xam ne moom moo di borom këram dama koo gis. Mm-hmm. loo xam ni moom dafa nekk di liggéey été jot mu di liggéey lu mu am jox ko jëkkër takk euh, euh, jëkkër ji takk si jabar no ci saase dégg nga wax bi. Mm-hmm. Euh, ni ko te te li mu ko doon jox daf ko war a waxoon ni ko pour mu defaral ko salle de bain am yëpp jour bi mu ñëwee bi mu ko bi mu duggee néegam mm-hmm. gisul loolu am déception bi mu am. loolu yàlla bu mu dal nit ndax da koo yaakaaroon nekkate loolu ku góor ki takk na ci soxnaam defar ca këram jàpp ñàmburam dafa am loo xam ne gis nga li Fatou wax ñu wet gore wettali ko dafa am jigéen ñoo xam ne ay jàmbaar lañu mm-hmm. ay gaynde lañu yore seen i doom yore seen i kër def lu ne yow ku jigéen yow ku góor ki xëntewul lu takk ay soxna mm-hmm. nan xaaral su ma takkee kii ki bu la bàyyee nga dem takk keneen mm-hmm. gis nga àdduna boo fi nekkee da ngay wet gore wettali ko gore te doylu voilà mm, macha allah en tout cas laal nga fu am. kon si noonu parce que da nga gis des fois xale yu góor yi koy def yëpp dañuy takk soxna di bàyyi takk soxna di bàyyi di céetale ren ceetale déwén ceetale après déwén financé sa xaalis yëpp yàq ko ci zéro bu woon sax fi ñu koy dugal jar na ko mais dañu yàq sa xaalis mu nekkoon loo xam ne su kaa mbay lu ñaaw la uh-huh. ñuy masawu bépp jigéen boo xam ne yaa ngi koy dund waaye tam di wax yéen góor ñu koy def ngeen bàyyi ko ndax lekk riba su kaa mbay eh, dara gënu koo ñaaw liñ naan riba ku ko xamul rek moo koy def ndax lekk loo moomoon alal alal gu la lewul wala alal goo moomul nga lekk ko te borom baalu la ko di nga ko ko fay fii wala fay fële te yàlla tey ji xaarut weer dee muy fay salaire yi suba jooni jooni jooni la la koy fayee kon nag nay leer te lépp lu waa ji def rek na ci xool digganteem ak boromam su kaa mbay li moo nekkoon suñu rubrique école des jeunes mariés di la mm-hmm. jox di daje ba àllarba incha allah ci beneen thème